lislaama ngoog ci xir gim xir nit ñépp tàmmal seen kàddu wax ju rafet fexe bay woddu wax yi tabaarakallaahu door ko présenté ci pénc mi ñépp sopp ko waaye loo am am dëgg am na nooy waxee dëgg ja rekk wax ja yàqu foo dégg ñu ne dëgg juy yàq pénc dëgg mënul yàq pénc mënul yàq kër mënul yàq réew waaye nañuy waxee dëgg ja mën naa tas kër mën naa tas dëkk mën naa tasam réew kon nañu roy yàlla ci yar suñ kàddu lislaama ngóog ci xiir gim xiir sëy des fi bañ luy màbbu tabaarakallaahu buum ak kóllëre gi yàlla boole diggante jëkkër yi ak jabar yi bëggul dara lu ko yàq buum ak kóllëre googa yàlla bëggul lu koy fecc buum ak kóllëre googa yàlla bëggul lu koy firi moo tax lislaam tabax ay fondation yu dëgër ci diggante jëkkër yi ak seeni soxna ngir bëgg sëy ba mën faa des première fondation ba mooy cofeel ñaareel ba mooy yërmande ñetteel ba mooy njekk su ko defee nag yii kenn ku ci nekk boo jëlee ñett ya benn bi jëkkër ko moom benn bi soxnaa ko moom ñetteel ba ñoom ñaar ñëpp ñoo ko bokk jël na lu ñuy tuddee mawadda moom la njëkk a tudd tabaarakallaahu jox ko soxna yi jël raxmatu jox ko jëkkër yi jël maaruufu boole leen ko ñoom ñaar moo tax jëkkër ak jabar bala ñoo ànd ñoom ñaar na fekk cofeel lal seen ak ànd cofeel ga bu doon téeméer juróom ñett fukk yépp soxna si lañ ko dénk mu war koo téye bu sa jë bu sa jëkkër daal soppee juróom fukki yoon na fekk yow sopp nga ko lu mat juróom-ñetti fukki yoon sa cofeel yow soxna si na ëpp sa cofeel ak jëkkër ci yow waaye yërmande ji su fekkoon ne téeméer la bu si sa soxna amee dix na fekk yow jëkkër ji nga am quatre-vingt-dix dañoo bëgg yàlla dafa bëgg bu leen boolee yërmande jëkkër gën a bari ci soxna si yërmandeeg soxna si ci jëkkëram waye budé ciofel gi ciofel ak soxna yi nañ gëna bari seen ciofel ci jëkkeer yi motax mu ne waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma mawaddatu bobu soxna ye ko mom rahmatu bobu jëkkeer ye ko mom waye nak mu jël soxna ya ak jëkkeer ya boole leen maaruuf moo tax mu ne wallahu na mithlu alladhi alayhina bil maaruufi ñoko bokk motax fa le mu waxane ne wa aashiruhunna bil maaruufi kon mooy ànd goo xam ne dafay tëdd dafay tëdd ci njekk ànd goo xam ne li koy lal mooy sutura li koy lal mooy am jom li koy lal mooy kenn ku ci nekk fulaal sa morom li koy lal mooy kenn ku ci nekk xormaal sa morom kooku moom yéen ñaar a ko bokk waaye cofeel daal tabaarakallaahu bu doon téeméer juróom-ñett fukk yépp na ko soxna si yoreel jëkkëram ne bu doon téeméer juróom-ñetti fukk yëpp na ko jëkkër yi yoreel seen soxna yi waaye nag am maa njekk ànd goo xam ne dafay dafay lalu ci njekk lalu ci sutura lalu ci loo xam ne ak ngore nangu na ko lalu ci loo xam ne ak nite nangu na ko lalu ci loo xam ne personnalité moo koy gugee kooku moom cinquante pour cinquante la buy téeméer yow soxna si jëlal juróom fukk man ma jël juróom fukk yow jabar ji yow yow yow jëkkër ji ngeen daje moo tax mu ne na walahunna mislu zi alayna bil maarufi loolu lépp yàlla boo gisee mu def ko dafa bëgg buum ak sëy gi leen yàlla takkee def fi lu koy firi lu koy dog ndax buum ak sëy yàlla bokk takkee saa dogee rek buum ak kóllëre dagg na bu doxoon ci diggante yéen ñaar doxoon ci diggante goroya ci ki doon ñaan ak ki doon maye waaye buum ak yaakaar dagg na ku la yaakaarut du la may soxna koo yaakaarut doo ko ñaan soxna buuma tax fase nekk lu doy doy waar dafa ñëw ngir dakkal kàndoo ak njekk gu doxoon ci seen diggante dafa ñëw ngir tas yaakaar gi juddu woon ci seen diggante ñaari goro yi dafa ñëw ngir dakkal ak coxeel ak yërmande ji yàlla boole woon yeewee woon waaye tabaarakallaahu dafa ñëw ngir dagg bu ma kóllëre ji leen yàlla fase woon yéen ñaar moo tax daal fase kenn waru ko yëkkati te fekk ñorut fase mu ñu rënk baaxul léegi-léegi nag fase moomu su fekkee dafa baxee koo ci jëkkër léegi-léegi say yàqu te boo toppee tànk yi jëkkër jee ko yàq yàlla may na ko soxna su nangoo sëy soxna su ko déggal soxna su ko nangul soxna su ko sopp soxna su ko nangu suturaal waaye nag góor gi moo bon rek nekk ko doy waar koo xam ne kum xam rekk ba xemee mam jeex ci yow mu tàppaas la bëgg sëy ba tas mu dem seete hat keneen kooku góor mooy góor yi gën a yées ci góor ñi yàlla rëbb na ko waaye léeg-léeg sëy yàqu boo toppee tànk ya jabara ko yàq mooy jigéen koo xam ne nanguwut a sëy dafa foogoon ne sëy bànneex la ba mu ñëwee ba dugg ca nag lay door a yëg ne ndeke daal sëy léppam coono la ndax jaamu yàlla jaamu yàlla du neex moom nag mu foogoon ne sol di jaagar jaagari la loo laaj ñu jox la ko la la feeñoon ca ngoro ga nga xam ne léegi-léegi nga gis jëkkër yay sóob loo xam ne sax dugul dëgg léegi-léegi ñu sóom bi loo xam ne mënuñ koo naan mooy bi nga ñëwee di ngoro si di jaay affaire naan eh, dama mu ne nijaay man de dama bëggoon attaaya nga jox ko cinq mille mu dem jëndi mille francs parce que lépp mat na mo ndi indi quatre nga nako ko teel téel bi ta yaangi ni bu ñewé sey si nga manam bu démé marché tabarakallah yore la weccetu cent francs tabarakallah man ngeen ci xulo ba xex ca ta ya doon may weccetu 4000 ca ga waaye tey nag francs ba 200 francs ba 500 francs jote na leen jote na len su boba nak fekké né soxna ci nak dafa jappé won ngoroga muy sey ga mu gis ne man kat poids bi ma amoon mi ngi gën di wàññeeku moom mu jaaree ca ba yàq sëy ba taxaw ñaan baat te fekk ñorut ñaan baat te fekk jaru ko woon kooku moom yonent bi dafa wax ne xetak aljaana sax du ko xeeñ te xetak aljaana rek doxab juróomi téeméeri at la aljaana tey tabaarakallaahu bu ko yàlla installé woon fii ci ndakaaru fii ngay dox lu mat juróomi téeméeri at maanaam boo fa taxawee xet ga xeeñ la soo ko doon wax daal aljanna bu nekkoon première asamaan buñ nekkee fii tey ci suuf xet gi dafa ñuy xeeñ ndax diggante asamaan ak suuf juróomi doxab juróomi téeméer at la kon sëy bu yàqoo ñu topp tànk ya mu bàyyeekoo ca soxna sa yonent bi nee na bu yowmal qiyaamee kooka xet ak aljanna du ko xeeñ waaye léegi léeg sëy yàqu boo ko seetee maanaam mbokk yaa ko yàq mooy mbokki soxna si ñoo ko yàq mooy ay ay ay ay ay jigéenam ñoo fa jaaree yàq ko wala sax ay frère am mbokkam yu góor yi ñoo fa jaaree yàq sëy ba wala sëy bi mën naa yàqu tukkee ko ci mbokki jëkkër ji yu góor ya mbaa yu jigéen ya ku ci sëy booba bu yàqoo ci diggante ñaar ñile te boo ko toppee maanaam euh, mbokk yaa ko yàq booba tamit maanaam kooka bàkkaar bu rëy rëy nekk na ca kaw mbokk yooya ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ak ñoom danaa ci yegsi waaye léegi-léegi say yàqu ba toppee tànk ya goro yaa ko yàq bëri ci goro yoo xam ne jikkoy goro lañ yore yàq rek yàlla may la nga am doom laaw doom ji ñëw takk soxna indi ko fa nga commencé di wujjeeg soxna soosa bëgg nga lu sa doom ji defal tabaarakallaahu sa soxna si nga teg ci sa bët mel ni ku koy xañaanee maanaam euh, jàpp ne sama doom lu mu ñàkk tey jabaram ji moo ko ko tax a ñàkk nangam ak nangam di ca dugg ba dugg ci loo xam ne mën nga caa jaaree ba yàq sëy ba am na ci ñoo xam ne tey dañ euh, seen dépense kër ga ñu yëkkati ko teg ko ci seen loxo ñoom ñu door koo teg ci loxol soxna sax naka nga mën a tàllalee sa loxo jël ci ñaari dépense yow yaa jëloon dépense bu baayam jaral bi ko tamit sëyal ko jaral bi ko bëgg tamit kii di sëy nga bëgg jëlaat di jëlaat jëlaat dépense bi di seet lu ñu war a wàññi lu ñu war a yokka yow lii lañ la joxoon te lii nga dugg lii dafa manqué lii matul su boobaa tamit bu sëy yàqooyee foofa ca wàllu goro ya goro ya ca wàllu euh, jigéen ga wala goro ya ca wàllu góor ga ñooña goro lislaam dafa leen xoolee bëtu golo ndax nag goro ak goro sorewuñu kon bépp goro bu yàq sëy rek yow moom mujj nga soppeeku golo te golo moom ci tool yàq rek kon sëy dana yàqu fekk goro yaa ko yàqu comme ni ko mbokk yi di yàqee waaye nag ku mu ci yii ma tudd junjal la ko bu yàqooyee lislaam ubbi na bunt buñ koy mën a saafaraayee waxoon naa la léeg-léeg sëy yàqu te boo toppee tànk ya jëkkër jaay yàq sëy ba ndax parewul pour denc kooku ba bu ba bépp sëy bu yàqoo ci wàllu jëkkër jëkkër ja dafa nekk koo xam ne kum xam ba xamee mam jeex ci yow rek mu tàppaas la booba jëkkër ku bon la ku yées la kooku yonent bi mu ne yàlla rëbb na ko euh, moom la yonent bi di wax ne laana allahu kulla zawaqin mitlaaq yàlla rëbb na bépp jëkkër boo xam ne ku mu xam ba kumpaam jeex ci yow rek bëggatul ci yow dara dana fexe ba tàppaas la sëy ba tas ah mu ne koo xamante mitlaax fasexa kon la boo ko seetee ñu ngi koy limal lim am ci ay soxna yum fase kenn xamut ni mu toll kooku mooy kii foxee téeréeb yàlla bi moo tax yàlla ne wala tattaxidu ayati laahi husuwan ma ngi ca suratu baqara ca aaya 23 kon sëy bu yàqu baxe ko ci wàllu jëkkër yow jëkkër jooju yàq sa sëy bi tabaarakallaahu fase te fekk fase ma ñoragut tabaarakallaahu fase te fekk amul benn cause bu koy waral fase te dara waralu ko dul sa xemam a jeex ci soxna si waaye amul lum la def luy waral fase amul lum la wax luy waral fase su boobaa yonent bi nee na yow xaw ma kan wala yàlla rëbb na la te ku yàlla rëbb boo ko mënoon doo bokk ak moom benn kër waxuma la benn néeg waxuma la benn réew waxuma la sax benn àdduna waxuma la benn asamaan kon loolu jar naa bàyyi xel rëbbam yàlla du dara lu dul yàlla sori la yërmandeem te yërmande yàlla ji kum sori toroxtaane dal na ci sa kaw kon bépp sëy bu yàqu te buñ toppee tànk ya fekk jëkkër a ko yàq rek booba jëkkër maanaam bët bu mel nii la ko yàllay xool te mooy soril ko yërmandeem te ku si yàlla soril sa yërmande maanaam yàqu nga kon bàyyil xel keroog ba nga takkee sa guru gi dem ci sëriñ ne seetal ma ndax dëppoo nañ seetal ma ndax dañ ko nangu ku ne nga dem ñaan lu ji ñi wan gannaaw ñëpp may la seetal kóllëre googu ñu fasee leen woon ko ak yaakaar jooju ñu jëleen ko teg ko ci sa loxo soo ñëwee loo man ci denc na nga ko def waaye nag tabaarakallaahu su fekkee dafa yàqu te loolu mi ngi yàqoo ci say loxo ngir sag négligé sag ñàkk a toppatoo doo faj doo dëkkal doo dëkkoo doo woddu tabaarakallaahu doo suturaal ba say doxee fa yàqu xaw ma kan waaye yonent bi nee na yow moom yàlla rëbb na la waaye waxoon naa la ko léeg-léeg say yàqu fekk na jëkkër am na yéenee denc la ko war yépp mi ngi koy def ma ngay dëkkal ma ngay dëkkoo mu ngi woddu mi ngi faj mu ngi suturaal waaye soxna saa nangul ku ko ji ndax am na ci jigéen ñoo xam ne kenn mënu leen a boot nag boo bëggee boot ko sax yi béjjën du sotti moom boo ne benn mu ne ñaar boo ne ñaar mu ne fukk mënta dëkk ak kenn ñetti baat ñeent mu saaga ñetti baat ñeent mu xasayaay di wax wax ju bon kon ba nga xam ne kii neexut a den nag neexut a nekk ak mu jàllar biku di laaj di laaj naan dama bëgg nga may ma sama baat te baat boobu muy laaj ñorogut ah, kooka tamit yonantu bi nee na xaw ma kan waaye a jigéen maanaam xetak aljaana du ko xeeñ kon bépp sëy bu yàqu te buñ toppee tànk ya na nga yàqoo ca wàllu jabar ja te dara waralu ko lu topp bakkanam ak i caaxaan booba jigéen yeneentu bi nee na cat ak aljaana du ko xeeñ nii la hadis bi tëddee ayuma mraatin saalat zawjaha talaqan min gayri basin fa xaraamun alayha raihatul janna hadis boobu asxaabu sunan yépp ñoo ko indi buxaari yu muslim abu daawuda tirmisi yu ibnu maja ñëpp indi nañ xadis boobu ngir wér gi mu wér kon sëy bu yàqooyee ci jëkkër wax naa la ko rëbbam yàlla rek mooy dal ci kaw jëkkër ja sëy bu yàqooyee ci digg ci jabar wax naa la ko yàlla da koy xeñ xetak aljaana sax du ko xeñ ku xetak aljaana xeñu nag doo dugg aljaana mukk te ku duggul aljaana safara nga jëm waaye léeg-léeg sëy yàqu boo ko seetee la ko yàq mooy mbokk ya rawatina mbokk yoo xam ne dañoo sëyoon ba tas ñëw ne faax ca kër ga su defee léegi seen rakk ja mooy sëy wala seen mag ja ñetti baat ñeent mu ne nañ ko jëli nangam ak nangam bu fa nekkee eh, ay goro yoo xam ne ni amuñu fulla di bàyyi ja bàyyi joo xam ne yaay jaa ko xilif su boobaa tamit sëy mën naa yàqoo foofa su boobaa sëy bu yàqoo ci mboq wala mu yàqoo ci goro bu góor wala mu yàqoo ci goro bu jigéen ngir ñàkk fayda te bëri na ci sëy yoo xam ne tey boo ko seetee baay ko yàq bëri na ci sëy yoo xam ne boo ko seetee yaay yaa ko yàq bëri na ci sëy yoo xam ne boo ko seetee mbokk yaa ko yàq naw bëri na ci sëy yoo xam ne tamit yow góor gi sa yaay yàq sëy bi mbaa sa baay ndax mi ngi nii ba nga bañ la mayee soxna moom sa yaay taxaw di wujjeeg sa soxna bëgg na loo ko defal def def ko ko wala bëgg na loo koy defal teg ko ci loxoom moom mu door koo teg ci loxol jabar ja seet lii a manqué lii mat di ko tappaas di wax wax ju bon su boobaa googu ku mu ci ñeent ñii ala kulli haal rëbbam yàlla dana dal ci kawam ak sànjam ak bàkkaar bu mag moo tax yonent bi daan wax ne laa tafalul mar'atu talaaqa uxtiha li tastafriqa safxataha wala tankiha fa inna laha maa qudira laha hadis la bopp Buxaari yu indi na ko ci buntab qadar waaye ca safha six mille six cent un muslim indi na ko ci buntab zakat boo ñëwee danga nga ko fekk tabaarakallaahu ci mille euh, sept boo demee danga ko ci fekk kon yooyu nañ ci bàyyi xel kon sëy boo ko seetee dana yàqoo ci ñii waaye mën naa yàqoo sax ci ab jàmbur koo xam ne du sa baay du baay du yaay du mbokk moom tamit du jëkkër du soxna waaye rek jàmbur la rek ngaa ñëw ca kër ga xam ay xarit yu bees rawatina yéen jigéen ñi may déglu nga ñëw taxaw ñi lay fréquenté nga leen di jox di ngay ataaya léeg-léeg nga yewi leen ñi xool lu kenn xamut ñëw fa naan yaa ñàkk fayda man bu doon man sa sa sa sa jëkkër ji danga ko gën a regle ndax moom gis naa otoom ba ci place sàngam gis naa koy muy wax ak góor sàngam liir naa ay message sam ci nàngam mooy yàqkat yi rek yàqkat yooyu mën nañoo nekk góor mën nañoo nekk ay jigéen yàq ga mën naa jaare ca jëkkër ja ñu yàqal ko jabaram ji mu doon denc yàq ga mën naa jaaree ca ca soxna sa ñu yàqal ko jëkkëram jii doon ko denc yàqkat nag ñaareel foo ko fekk da ngay dégg mu ne bu doon man te du doon moom mukk nag man de bu doon man sa jabar ji danga ko gën a régler sa jabar ji ay mbiram leerut sa jabar ji liir naa ay message sa jabar ji li ngay fere ci moom dafa bëri nangam ak nangam wala mu taxaw naa la sa jëkkër jii su ma doon yow danaa ko jël teg ko ci àndam góor ñii boo leen bàyyee ñi taxawaalu ji mën nañu gis nangam ci mbedd mi sa romb naa otoom ci place sàngam dégg naa ko ma ngay wax nangam di la indil ay wax yu kenn xamut ba sa bopp bi yëpp mujj maanaam jaxasoo sa jëkkër ñëw rek maanaam tàngee ci mbedd mi bëggoon lu ko seddal nga gën koo tuur tàngoor mu jaaree ca tabaarakallaahu may la sa baat sëy ba tas ca wala yow tamit soxna soxna si ñëw nekk ci kër gi pare pour seddal la yow nga dajeeg ab yàqkat yow jëkkër ji mu jël sa bopp bi sol ci loo xam ne kenn xamu ko bu doon man bu doon man bu doon man nangam ak nangam ba wax la loo xam ne dëgg nga ca ñëw tàngoor bi nga jëlee woon ci biti nga ñëw tuur ko sa soxna si tabaarakallaahu mu sofee soxna sa jaaree fa ñaan la baat sëy ba tas yàqkat boobu nga xam ne du mbokk mën naa am dëkkandoor la rek mën naa am sax du dëkkandoor àndandoor la kooku tamit yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama wax na ne waxuma ko kooku mu ne bokkut ci man yonantu mu da koo génnee dafa ne laysa minna man xababa imraatan ala zawjiha képp koo xam ne yàqal nga jigéen ci jëkkëram waaye déggee nañ ci tamit ku yàqal jëkkër ci jabaram doxee fa ba sëy ba yàqu te la ko yàq yépp buñ toppee tànk ya yow naa feq bi tabaarakallaahu yaa ko yàq moo xam góor nga moo xam jigéen nga yonentu bi nee na yow xaw nga kan waaye yow bokkoo ci man te billaahi bëri na sëy yoo xam ne boo ko seetee ay ay say àndandoor yi ngay fréquenté rek ñoo ko yàq maa la ko wax moo tax kon mbooleem porte buy nit di wara mana jaar pour yàq sëy rek yonent bi tëj na ko tëj na ko sa jëkkër ne ko ko buy boo yàqee sa sëy bii ci sa digganteeg sa soxna si yow moom xaw ma kan waaye rëbbam yàlla dal na ci sa kaw jabar ne boo yàqee sëy bi dox sa digganteeg sa borom kër xaw ma kan waaye yow kat ak aljanna du la xeeñ waaye jàllal bi ko tamit jànkaafu mbokk ya ci ñaari côté yépp ci jëkkër ja ak jabar ja xaw ma kan waaye yéen ñii bu ngeen doxee yéen goro yi moo xam yu góor lañ moo xam yu jigéen lañ yéen mbokk yi moo xam ci wàllu jëkkër ji moo xam wàllu jabar ja su ngeen fa nekkee di wax ak a jëf ba sëy yàqu ci diggante ñaar ñii bàkkaar bu rëy dal na ci seen kaw waaye mu bàyyee ko fa tamit tànkaafu jàmbur ya ñi nga xam ne dañ lay fréquenté rek yow jabar ji wala ñi lay fréquenté yëpp yow jëkkër ji di la indil loo xam ne dara nekkul ca waaye loola dox ba sëy bi yàqu kooka moom yonent bi nee na moom li may njëkk wax mooy bokkut ci man ku ko askanee ci man tamit man génn naa ci moom ba jeex càkk te lay sa min naa fa bëri ci wax xadis dafa bëri ci xadis yonent bi de bëri na kuy askane koo ci xeetu yonent bi yonent bi taxaw ne la yow moom lasta min nii bokkoo ci man te yooyu dafa bëri lay sa min naa lay sa min naa ak a bëri ci xadis sayyiduna Muhammad sallallahu kon sëy yaa ngóog ak bunt yi mën a jaare ci ay port yi ma la wax ba yàqu ca jëkkër ja ca jabar ja ca mbokk ya ca goro ba wala ca goro ya ca àndale ya ca dëkkandoor ya yépp wax naa la ko waaye gis nga yàlla bàyyiwul ñoog loxoy neen gannaaw bi mu indee lu mën a yàq sëy te bàyyeekoo ci jëkkër wala mu bàyyeekoo ci jabar wala mu bàyyeekoo ci mbokk wala mu bàyyeekoo ci jàmbur porobalem bi bu juddoo ci ku mu ci ñeenti côté yi lislaam indil nañu solution yoo xam ne buñ fa jaaree rek mën nañoo trouver maanaam solution ci problème bi dal ci suñ kaw mu ne su fekkee ak yàqu ci sëy dañoo topp tànk ya mu bàyyee ko ca jabar ja jabar gi ci boppam moo parewut pour ñu denc ko bëri problème bëri wax du du wannu kàddu nekk fa bari ay tontu ñetti baat ñeent mu tàcc soo ko joxee du togg soo ko joxee mu wàññi dépense ya du togg lu baax boo ko wanee gannaaw mu sàcc la ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen jigéen ñeeg seen problème ya kenn mënu koo kenn mënu koo dajal te jigéen gu ak problème am ak moroomam dafa mel ne yëpp niroo xukamaa wi dañuy wax ne ñett moom ñëpp a ko niroole foo mën a dem ci àdduna bi ñëpp a niroo yi ay jigéen problème bi ngay tawat sa kër gii boo demoon Amérique nga waxtaan ak boroom kër foofa moom tamit problème boobu rek lay tawat ci soxnaam ay jigéen ñépp ko niroole ñaareel bi ay gone ñëpp ko niroole ñetteel bi ay juru kër ñépp ñëpp ko niroole ku la gën a bari wax rek a fi ne. kon nag problème mu jigéen yooyu nga xam ne kenn mënu koo dagal ngir ak bëri yàlla nee na bu sëy demee ba xajam sëy dem ba lëndëm ñu topp tànk ya la ko lëndëmal ma nga bàyyeekoo ca soxna sa kon su boobaa tëral naa ci seen kanam ñetti solution solution bu njëkk ba na ngeen ko waar ndem jëriñ na bu jëriñut dangeen ko tong tong ga nag ca lal ba rek bu la wanee gannaaw rek nga wan ko gannaaw bu ñëwee rek tëdd nga wan ko gannaaw ne ko jikko ju bon ju mel nii ci yow fekk mi ngi ci yow du ma jaxasoog yow loolu nag la jigéen gën a bañ ci kaw suuf nga tong ko ci lal wala mu togg ba foo ne moo ca ne nga ne ko jëlal nga dem lekk man suur naa moom bu nekkee ko xam jom ñaar yi balaa yàgg rek nga gis solution mu ne boo defee nag tong nga jëriñut gannaaw bi nga waaree dóoral dóor ya nag waxuñ dóor yuy gaañ waaye da nga koy wan ne ko rek dóor mbaam lañ ko war a def waaye jikkoy mbaam yi nekk ci yow moo tax dóoruma sa yaram wi mais jikko joojo di jikkoy mbaam ji nekk ci yow moom laay yar moo tax sa bañ laa laajee Ibnu Abbas yar booba nu mu war a toll mu ne na toll ni soccu rek nga dégg kon yar su ndaw lay doon waaye sa soxna si def lu defu nga waar jëriñut nga tongu jëriñut nga wuti xet wala nga wuti karwaas dóor ko ba yaram woy dagg ah kooku tamit kenn toggut la ko ci sarihatul islaamiyya bi nga xam ne dafa silwiise lool kon waxoon naa la première solution bi waar ko waar ga nag ko ne ko alquran a wax ne walahunna mislu si alayna bil maaruf njekk li war ci man ma la koy laaj mooy njekk li war ci yow ma war la koo jox ci suturaal la ci fonk la ci xormaal la ci sagal la nga waar ko ca loola bu jëriñee baax na bu jëriñu nga ne ko xanaa déggoo la yonent bi wax ida salatil mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha wa ataat zawjaha a qiila laha la jannata min ay abwaabil jannati shiti kooku la xadisu ibnu xibaan bi la waaye beneen xadis wax ne daxalat jannata rabbiha mu ne ko xanaa déggoo bëggoo bokk ci juróom ñi de yonent bi nee na jigéen gu mën a don bu fexee ba rempli juróom ñi rek dugg aljana xanaa bëggoo dem aljana yonentu nee na bépp jigéen bu nangoo julli julli juróomam xoor weeru kooram wattu boppam topp jëkkëram tàbbi aljanaay boromam yow nag yëg naa ne julli kenn mënu la ci kenn mënu la ci xoor kenn mënu la ci wattu sa bopp waaye nag problème bi nga am daal mooy topp sa jëkkër nga mënut bu la na benn nga ne ko fukk xanaa bëggoo dugg aljana nga waar ko ca loola su jëriñee baax na bu jëriñul nga ne ko xanaa déggoo la yonent bi wax ci yéen ci jigéen ñi xanaa bëggoo bëggu ci jigéen ñooña ayuma mraatin maatat wa zawjuha anha raadin daxalatil janna jigéen gu mën a don bu dee fekk jëkkëram gërëm na ko rek mu tàbbee aljana xanaa bëggoo dem aljana xanaa mënoo fàggu sama ngërmande mu la war a man tàbbal aljana tàngal nga sama xol nangam ak nangam ak nangam su ko defee bu jëriñee baax na bu jëriñul nga ne ko yonentu nee na Jigen gum mana don bu ko jeukeram woyé ci lal mo bañ bañ ko wuy si ha gogo jigen malaka yi dañ koy fanano reub ba beur di set iza daa rajul imraatahu ila firashihi fa abat fa baata ghadban alayha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha bukhari yo muslim yëpp ñu andi hadis bobu te yaangi ni sa yu mala sakongawan nga won ma gannaaw da nga bëgg bokku ci ñu malaka yi ya di reub bayil su jikko yu bon yi nga nekkee su ko defee nag ah sayyidatuna Aïcha xanaa déggoo waxam ja mën wax moromam jigéen na mi yéen sama sama moromi jigéen ñi wallahi xaq yi nga xam ne moom ngeen amel seen jëkkër yi bu seen jëkkër yi baxee koon ca mbedd ma poussière ngeen commencé ca cet kawar ya di ko mar ba ca cet ñaari ca ténk ya taxul ngeen jox ko xaqam kon yow xanaa bëggoo bokk jigéen ñi Aïcha di wax ak di ay moromi jigéenam xanaa bëggoo bokk ci jigéen ñi yonent bi wax na ni nisaakum min ahlil jannati alwadud wallahi jigéen ñi nga xam ne ñooy waaxal jana mooy ña gënoon a sopp seen jëkkër ya su ko defee kon xanaa bëggoo bokku ca ñooña nga xamal ko yëpp waar ko ca bu yàggee mën naa jari yii yëpp nag boo ko defee jigéen koo xam ne tabaarakallaahu dafa boole tëx boole kook euh, silmaxa maanaam mënta gis dëgg mënta nangootum mënta dégg dëgg nga door koo nag tong tong ga nag ca lal ba wahjuruhunna fil madaaji'i la alquran wax bu ma la njëkkoon a wax yëpp mooy fa'izuhunna bu jëriñee baax na bu jëriñut nag wahjuruhunna fil madaaji'i mooy ne danga ko jox ayeem nga su fekkee ñaari soxna nga am mbaa ñett yaa xam bu boolee aye rek na fa tëdd waaye nag wan ko gannaaw rek tafu ca miir ba na ko man daal jikko ju bon ji fekk mi ci yow duma la jox sama bopp mukk doom ji te juddoo ñu koy lor du ko defee kenn du ko mën a teqaleeg coono ci jafe-jafe kon nag loolu jar naa daw de mos naa dal génn góor ndeysaanam yàlla may ko doom ju góor ak soxnaan doom ja rek juddu rek tekki yàlla may ko mu hubbeeku lool ci wërsëg yàlla may ko xabool ñépp jublu ko fuñ tollu dëkk bi diw diw diw diw ba benn bis mu dawal fas rek wàcc tool di ñibbisi fas way daw ba dugg ca biir dëkk ba benn renu alom bu mag fas wa fakkastalu fa daanu damm xale ba daanu dee foofa te moom la dëkk bi yépp ñeewoon moroom moom yépp bëggoon a mel ni moom aa bàyyi jane yàlla du juum de kii de yaayam doonaa ko sàkku pour bëgg a ak moom muy bañ ma topp ca di ko forcer ci guddi gi mu génn daw ma topp ko ci lëndëm gi ba mu daanu fii ci erenab alom bi moo ko fakkastaloon mu daanu ma forcer ko ci ànd ci ak moom ci la xale bii tey tey daanu ci fas wi ci ranu alom bi ci la juddoo woon moo tax daal yàlla kenn du moom kon nga tong ko bañ a ak moom ca lal ba léeg-léeg sax mën naa togg ndeysaanam te yaa joxe dépense ba mu ñëw nga ne ko suur naa jéggale naa wala mu teg bool ba ba pare nga seet ñeneen ñu ko aajoo sarax leen ko yii moom bu dekkee jigéen gu am jom bu yàggee rek mën naa soppeeku jigéen moom ñaar la gën a bañ nga tere ko sa bopp waaye tere sa bopp tamit ci ñam wi mu togg loolu moom lu la naqari boo ko jaaree ca ñaar yooyu rek bu dee bu dee jigéen gu am jom bu yàggee rek mu faju kenn mënu ca dara bu jëriñee foofa baax na bu jëriñut nag troisième étape ba mooy wadribuhunna na ngeen leen dóor dóor ya nag duwul dóor maanaam intiqaam wa ta'zib lislaam bëggut ko dóor yi mbugal ko dóor toroxal ko waaye innama huwa darbu tahzib dóor yi yar ko rekk la yar ga mooy jikko yu bon yi nekk ci yow di jikkooy mala muy jikkooy mbaam yi nekk ci yow te mbaam dañ koy wutale xet di ko dóor dóoruma sa yaram wu tedd wii dóoruma sa yaram wu sell wii ak xormaat gi la yàlla jox yow jigéen ak fim la teg waaye wallahi baa ngi dóor jikkooy mbaam ji nekk ci yow laa bëgg mu teqalikook yow ibnu abbas bi yonantu bi ne na nag dóor ya bëgguñu mu nekk xayru mu bare benn saxaabi yu laaj ibnu abbas ne ko kon nag xayru mu barix mooy lan mooy dóor yoo xam ne du nàccal cër du ko defal ay taraak waaye tamit nga teet xar-xaram ba mu ne ko kon nag dóor ya daal du dara lu dul nga lu mel ni yar bu mel ni soccu rek wala bant bale nga dóoree ko ko kon nga xam ne dóor ya du dóori mbugal waaye dóor ya nag dóor yi yar ko pour jikko ju bon ju nekk ci moom man koo bàyyi kon wax naa la ko sëy bu yàqoo te fekk buñ toppee tànk ya ma nga yàqoo ci soxna sax étape yi la lislaam wax nga jaar ak moom na nga saafara jàngoro jógu ci waar ko bu jëriñee baax na bu jëriñut nga tong ko ci lal bi bu jariñee baax na bu jëriñut nag nga dóor koo dóor dóor mel nii ma mujj la koo wax ñett yi nag boo ca xeggee wax dëgg yàlla te jëriñut xalaa ku leexal nag boo xeboo teqali ko moom ndax dóor moom bu fekkee mooy dernière étape ba kañ nga door lo lu melni bant balé ak ab soccu so moy tour bu la defaatee lu la naqari xet ngay wuti te su boba yoon dana xam ci yow yoon te su boba nak bala nga a xegg foofa wa in yatafaraqa yuxni llaahu min sa'ati rek mo fay sos te nak ab sey bu fa dara su dul wallahi kenn ku ñek man man nañ ko delo wajuram ñu ci bayyi xal legi nak su fekke sey mo yaqku diggante jeuker ak jabar daal neexoowuñ mbir ma metti na lol waaye ba ñu seetee daal neexut ba neexut waaye daal jëkkër ja mooy tooj rek jëkkër ja sàggan jëkkër la joo xam ne sàmba alar la mu ngi nekk di maye ci mbedd mi ñu koy tagg rek te bëri na foo koy taggee bu la jabarab jege woon xaañ la ndax amul ko benn njariñ boo xamee ordonnance du ko jënd bu feebaree du ko faj tabaarakallaahu bu raflee du ko wodd bu xiifee du ko lexal ma ngay dem sax bay fanaan ca biti tabaarakallaahu dëkk ak coono yu méttee méttee métti yoo xam ne kenn mënu ko wax foofa nag su ngeen fanaree naree hegg ñu topp tànk ya fekk lépp jëkkër ji la jëkkër ji def na ko taaj nag ci ànd da koy taaj ci ànd nag mooy ña ko mayoon soxna si ñoo koy xamal ne ko bi ñu lay may soxna si pour nga yor ko la pour nga teral ko la pour nga suturaal ko la pour nga toppatoo ko la comme nag toppatootoo yorotoo lexaloo woddoo fajoo su fekkee yaa ngi xame yéene yor jikko yu bon yi nekk ci yow na nga gaaw teqalikoog moom te fexee jikkoo jikko ju baax ci sa digganteeg sa soxna ndem fas nga yéene denc suñ ko waxee loolu jëriñut mu gën a féttérlu nekk ci ay caaxaanam noona te soxna si mënta muñati coono yile la fa sës nag mooy rek ñu tas sëy ba moom la alquran ne wa in imraatun xaafat min baaliha nusuusan aw iraadan fala juna alayhima an yusliha am nañu jàng an yusliha baynahuma sulhan fekk na wa sulhu xayrun comme daal nañ xéwénal seen diggante ak xéwénoo nag loo mën a dégg wax ba juboo moo gën wax ba teqali ko luñ mën nañ ko def foo dégg nag wax ba teqali wax ba juboo am na ci koo xam ne dafa amee wooloon xàq mu bàyyi moo bàyyi xàqam fokk mu am ko gën a yolomal waaye lii sa xàq lépp boo ko bëggee jël yow jëkkër ji jabar ji bëgg a jël lii xàqam lépp mënu leen a juboo waaye juboo foo ko fekk am na ko gën ku ku ku yolomal la la Muawiya daan wax su ma doon xëccoog nit ñi kawar li muy neex a neex dog du dagg ñu ne ko lu tax mu ne bu ñu yolomalee ma xëcc buñ xëccee ma yolomal te foo dégg nangam dog na rek ñaara ko xëccoo kon tamit jëkkër ji foog mu yore jikkoy Muawiya su boobaa rek fu mbir mi naree dang nara teeng rek nara dëgër rek mu yolomal waaye nag bu mu fa nekk naan man maay borom kër gi nangam ak nangam damaa dama sama kàddu dañ ma koy jox ba mot sëkk li ma bëgg moo fi am di furuñ fuñu ñi di jaay maanaam fulla waaye dama ne xam fulla ba sa kër tax ñàkk fulla ba sa kër taxaw a ko gën jar na bàyyi xel léeg-léeg tamit soxna sax mën naa xam àqam tabaarakallaahu mu ne lii sama àq la mais man far naa la ko delloo ngir bëgg sëy bi rek des fi waaw moo la gën moo dal sayyidatuna sawdatu soxna si soxna si soxna yonantu bi te comme soxna la dafa war a am aye waaye mu yëg ne daal dëgg-dëgg dafa màgge manta rafalati ak aye yonantu bi xeebut diineem yonantu bi xeebut jikkoom yonantu bi xeebut jëflanteem waaye daal ak mage nekk na ca moom mu xëy benn bis rek ne damaa waroon a aye maa ko moom comme ni ko yeneen soxna yonantu bi yëpp moomee sa bis ni ki tey sama aya gi may naa ko sama wujj wi di sayyidatuna Aïcha yow yonantu bi bis boo waree aya ci man sama fan yooya Aïchatu moo ko moom boole ko aya yam amoon moo tax Aïchatu ñaari aya la amoon aya ak boppam gi ko yàlla jox ak aya gi nga xam ne wujjam di samxatu moo ko ko may bu ko mayoon yonantu bi may ga day roogaat ci soxna yépp waaye tànn gi mu ko tànn may ko wujjam moo tax wujj wa am bénéfice wu am ñaari aya ayeg boppam gi ko yàlla jox ak ayeg gi ko jëkkëram maanaam gi ko gi ko wujjëm wi may waaye bu ne woon yow yonent bi sama ayeg gi may naa la ko su boobaa kon bu amoon juróom soxna kon ayeg ga juróom-ñetti la koy séddale bu amee fii benn fan am benn su fekkee dañoo d'accord ñaari fan bu amee fii ñaar am fee ñaar ba juróom soxna ya mat waaye bu ko xasee may wujji wa nag moom wujji waa ko moom su boobaa bu amee fii ñaar muy fani wujji wa dafay defaa yeneen ñaar yoo xam ne mooy yi ko yàlla jox moom sayyidatuna sax naka noonu tamit soxna am na droit jël ak ayem jaay ko wujjëm ne yow kat nijaay ci fii nga waroon na tey aye maanaam jaay naa tey sama aye gi sama wujj wi waaye njaay ga nag balaa man beneen koo mën a validé day fekk jëkkër ji ànd ca bu jëkkër ji ne ko d'accord naa kon baax na mën naa kon ayem gi yow jënd nga ko ci moom kon moom laa koy jox kon baax na waaye bu ko jaayee mu na ko nag déedéet nag jaay nga ko mais man d'accorduma ndax man tey ma aye ci sama soxna si nga xam ne moom moom moom laa war a jox aye gi moo ma gënal a ah, su boobaa tamit njaay ma day yàqu ndax mën na ko koo jaay mu ne ko déedéet man d'accorduma aye ci yow mi bëgg a jaay moo ma gënal d'accorduma ci kon su boobaa du ànd du du du mën a demati. kon loolu lépp mën naa nekk boo demee ci xalil dana la jàngal jaay sa aye yow wujji wi sa jëkkër may sa aye sa jëkkër may sa aye sa wujji yëpp boo demee téere boobu dana la ko jàngal waaye gis nga daal sawdatu mi ne aye àqam la ak la ci moom moo ko moom waaye dafa ko yëkkati may ko saydatuna Aïcha ne ko diirëb li ma fi desati xaw ma maa lay njëkk jiitu xaw ma yaa may mujj jiitu yow yonent bi waaye daal saa yoo war a aye ci man rek man jéggale naa may naa ko saydatuna Aïcha man doy na ma tedd nga yowmal qiyaam ñi pang ma ma bokk ci say soxna rek te daal suñ continuer lii sama màgget mënu maa rafetal aye mën naa dañ ci sa buum kon sama àq la woon waaye bis dikki tey may naa ko sama wujj wi ndaw soxna su baax soxna moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mën na laa may yëreem mën naa may yëreem wujjam soxna mën naa jël takkaaya may ko wujjam mën naa jël xaalisam may ko wujjam mën naa dem marché mu ànd ak moom mën naa dem xew mu may ànd ak moom waaye may ko aye foofa la tabaarakallaahu baax ci soxna yem kon xam nga ne kooku wuteeg naag soxna si si si sële tabaarakallaahu doon sàkk dimbu benn garab la yàlla natt ko mu daanu tànk ya damm loxo ya damm ñeexenu yóbbu ca kër ga mu ne yóbbu leen ma sama néeg nijaay tay maa xaye xam nga ne kooka ku xëccoog moom xaye tabaarakallaahu mu faat sa bakkan bi te loolu moo ko wax rek waaye waxal na ko soxna yu bari yoo xam ne kenn xamut nu ngi toll waaye naa ah, sawdatu mi jël ayam may ko wujjam ngir bëgg a des ca buum ak sëy ga kon yow soxna si léegi léeg da nga gis loo xam ne sa xàq la moom waaye ko toppee laaj ko rek mën naa dem ba ba ñàkk la ca nga ne man la doon sama àq sax far naa ko joxe ngir bëgg rek sëy des ndax léeg-léeg nit dana sëy fekk sëy ba sax bëggatu ca dara waaye waat naa ne lu tax lu lu ko defat tax a des ci sëy ba doomam yi rek la xamul nu mu leen di def nu mu leen di wan wan gannaaw lu tax dafa bañ tabaarakallaahu toroxal ay soppeem lu ko tax dafa bañ ay noonam tamit di ko ndokk waaye dana def sa sëy ba sax mun naa xam bu xeenoo bagaasam yii ànd ak ay doomam kër gum demati xatal ko bàyyi ma nga yor ay soxna amee ay doom tabaarakallaahu te moom ba mu fay bàyyi ko dafa bokkaate woon néeg te fu mu nii lim yore ci njaboot man ta bokkaate ci néeg te foofu fu mu war a delluwaat beneen problème la mu mu jël loola lépp lépp ko suul ko ngir des ci néeg néeg maanaam jëkkëram ak lu ko mën a jural jaral na ko ko kon jël sa àq nga joxe ko doonte yaa ko moom loolu dana tax tamit euh, say def fa ndax bakkan dafa bëgg a xàq moo tax alquran moom lay wax ne wa in imraatun xaafat min baaliha nusuusan aw iraadan fala junaa alayhima an yusliha baynahuma sulhan wa sulhu xayrun lu ko waral wa uxdirat al anfusu suxa wa in tuxsinu wa tattaqu fa inna laa kaana bima taamaluuna xabira nisaa yi nga koy fekk ay cent vingt-huit lii dal ko dal na saydatuna safiyatu yonentu mas na koo mere mer gu tar muy liy dox rek ci diggante jëkkër ak soxna mere na ko waaye ba mu ko meree bëgg naa juboo xaat ak bi mu dëgg tànkam dem ba ci yi sa ne ko dama bëgg nga dox sama digganteeg yonentu bi jubale ñu boo ñu jubalee rek sama aye gii di ñëw may naa la ko fi yonentu war a aye ci man naa la naa la ko wow ma nag may gu dëkk de waaye gii laa la may gii ñëw rek buñ jubóoyee rek ay gii ma war a njëkk ay rek jox naa la ko mu dem dox ci seen diggante ba ñoom ñaar ñëpp jubooxaat aya saydatuna safiyatu tabarakallahu war a aye yonentu bi saydatuna aïcha ñëw rek toog ci digg kanam yonentu toog dend ak moom yonentu bi ku ragal yàlla la bëggut a jël ayeg jàmbur di ko jox ku ko moomut mu wax soxna si ne ko ilayki an nii sori ma fa innahu laysa bi yawmiki maanaam bis sa duut sa aye sayyidatuna sa sooy ma ah sayyidatuna Aïcha ne ko nag zalika fadlullah yutihi man yasha waaye loolu gënalal yàlla la daal dina ba mu ko waxee loolu jàng aaya ja firil ko ko ne ko ah, bi nga jotee joteeg sayyidatuna safiyatu dafa maa wax ne ma naa dox seen diggante jubale leen ma ñëw ñaan la daga la jàppoon nga bàyyi ko moom mais ma dem ñaan ko lam jàppoon mu bàyyi ko ba mu ñëw tuubal la nga jéggal ko dafa maa waxoon ne su ma defee loola mu may ma ayam gii di ñëw te ayam googu mooy bisu tay bi moom la ma ko jox yonente na ko kon nag baax na loolu seen diggante la kon nangu naa ko kon gis nga ko jigéen ñi jigéen ñi démb ya maanaam bëgg a des ki seen néegu sëy dana leen jaral àq ji nga xam ne ñoo ko moom sax ñu far ko gedd ñu far ko maye ñu far ko joxe ngir rek des ci buum ak sëy xam nga loolu euh, jafe na ci suñ jamono ji lool jigéen gum ko jaral bëreetul de loolu kenn xamul ni toll kon jafe-jafe bu amee fekk buñ toppee tànk ya jëkkër a ko waral wax naa la ko jafe-jafe bu amee ñu topp tànk ya fekk soxnaa ko waral wax naa la ko bunt ba muy jaar ba loolu yépp ñu mën koo saafarahu ci sutura waaye tey nag dama lay wax jafe-jafe bu amee fekk ñoom ñaar ñëpp daal ñoom ñoo ko waral ndax daal euh, ñoom ñaar ñëppay tooñante ndax dama la waxoon bu jëkkër di tooñ wax naa la bu jabar ji tooñ su fekkee na ñoom ñaaray tooñante nag ba tey alquran ubbi na bunt boo xam ne buñ ca jaaree rek ba tey sëy ba des fa ngir bëgg rek sëy des bu fekkee ne ñoom ñaaray tooñante léeg-léeg jëkkër ji tooñ ko ci ñàkk koo jox ayeem ñàkk koo jox dépense ñàkk ko wodd ñàkk ko jëndal ay ordonnance am ñàkk ko fajal ay soxlaam waaye léeg-léeg tamit soxna sa tooñ ko ci jàll ko baat bu ko teree du bàyyi bu ko digalee du def léeg-léeg mu génn kër ga du ko tàggu léeg-léeg nekk ca la ko neex yooyu yëpp kon yaa ngi may tooñ maa ngi lay tooñ rek su boobaa sariya dafa wax ne nañu tànn ñaar ci famille góor gi ñu am xel tànn ñaar ci famille jigéen gi ñaar ñu am xel ñoom ñaar ñii ñi bokk càmbar jafe-jafe gi nekk ci ñaari way dencinc yi su boobaa nag dañ ko càmbaree fekk nañ ne ñoom ñaar ñëppay bokk di tooñante nañ leen bokk ñoom ñaar jàjji leen nañ leen bokk ñoom ñaar waar leen nañ leen bokk ñoom ñaar tamit defaree leen su fekkee gis nañ ne defaree kat mën naa ne waaye bu fekkee dañoo xool gis ne ñaar ñii kenn ku ci nekk ñaari jikko yi sa jikko la te ñaar ñii mënuñ leen a dajale te ko gis nañ ne bu ñu àndee rek danañ xeex te buñ xeexee mën nañoo gaañante bakkan sax mën na caa des kenn ku ci nekk yan nga sa morom sax ba yegg foo xam ne mën ngaa togg ñam jël posan def ko ca mu lekk ko dee wala yow jëkkër ji jënd soow def ca poson jox ko mu naan dee ndax daal maanaam mënatoo ci moom dara te xam nga maa manoon mënatuma ku koy xeeb sa jabara la ko waxut mbaa sa jëkkër wax la ko waaye billaahi yow ya kàddu bu baxee ko ci kenn ci ñaar ñii dootoo da nga xam ne baat boobu xeebu hut de kon nag jafe-jafe bu amee nii kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar sës nga te xam nga nit ku sës boo fa nekkee naan ko muñal muñal muñal muñal yow moomu da nga koo rey mais muñ loo ko te am na koo xam ne ku koy muñ loo yaa ko rey su boobaa nag yàlla nee na jël naa buum ak sëy ba nangu ko ci jëkkër teg ko ci ñaari délégation yooya luñ dogal ma dogu ca buñ dogalee continuer sëy ba ma ànd ca ndem gis nañ ne continuer ga man naa ne su ko defee ñu fexe euh, kenn ku ne li nga xam moom ci jikko ju bon nga jéem koo dindi nang doon loree sa morom nga jéem koo bàyyi su fekkee gis nañ ne ñii seen ak ànd daal jarul sonn bu ñu xeboo ko fii su boobaa tamit yàlla nee na ma ànd ca bu fa emalee sëy ba foofa ma ànd ca moo tax léeg-léeg sëy dana dem ba yegg foo xam ne yàlla day nangu loxol fase ma ci jëkkër teg ko ci loxol ñaari goro ya ñaari ñaari ñaari goro ya ca wàllu jëkër ja ak goro ya ca wàllu jabar ja ñoom ñoo ñu toog nag waxtaanee diggante ñaar ñii lan la ndax su fekkoon ne tey tooñ la gu bàyyi ko ci jabar jabar la ñuy wax rek mu jeex wax naa la ko su fekkee tooñ la gu bàyyi ko ci jëkkër jëkkër la ñuy wax rek mu yem fa su fekkee ne tooñante gi ñoom ñaar rek la ku ca wax ñoom ñaar nga ne kii am dëgg jafe-jafe am na nga gis na ñi daal dëgg-dëgg lii jàmm mooy buñ ñu xeboo xemale fi sëy ba yàlla nee na ma ànd ca su boobaa ñoom ñooñu bu ñu taxawee dogal ne fasamin nañ nañ daggal seen diggante yàlla ànd ca moom la alquran wa in xiftum shiqaaqa baynihima fa bu'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yurida islaahan yuwaffiqillaahu baynahuma suratu nisaa yi ngooy fekk ci aaya 35 lii boo demee fekk ko ca kon shiqaaqa ngóog bu doxee ci seen diggante ñoom ñaar waaye gis nga yàlla ni muy waxee moo lay daane in yurida islaahan la wax su fekkee nam nañoo defar ñaareel bu yàqu amee lu garaaw garaaw bu ma tànnee délégation ci wàllu jëkkër tànn délégation ci wàllu jabar ñoom ñaari délégation yii bu ñu xamee yéene defar rek defaroo dana fa am moo tax Omar ibnu Xataab kenn gënu koo dégg alquran ñaari maanaam ñaari sox maanaam soxna ak jëkkër amoon nañ jafe-jafe seen diggante am yàlla dogal ñu Omar tànn fii ñaar tànn fële ñaar leen dem leen ngeen jéem a defare seen diggante ñoom ñaar bañ demee far daal yàq diggante ba ndax la am na yoo xam ne boo ko waxee yàq diggante ba waaye bu fexee mee neex sax ñun lu ñu xam jël ñun maanaam ngéejootuñ leen na nangam ak nangam ak nangam ñëw di sulli loo xam ne lu yàgg la du ko defee yooyu tamit am na ci yoo xam ne ku ko wax yaa yàq sëy ba moo tax ñoom ñaar bañ demee wax yàlla dogal defaroo amut sëy ba joxee fa tas Omar dafa leen a woolu ñoom ñaar ñëpp mu caw leen ñaari délégation yi kenn ku ne mu caw la mu ne yéen ñi seen i yéene rafetul te ku sa yéene rafetul mënoo defar dara ndax yàlla neen in yurida islaha yuwaffiqillaahu baynahuma kon nag da ngeen a xamutoon yéene defar moo tax eh, tawfiq muy dëppale gi amut moo tax ñoom ñaari délégation yi Omar caw leen te jamono ji bëri na koy wax tànn ko ne sa yëpp ba dee xaw naa am rëq-rëq demal yaag diw ngeen dem waxtaan ca defare ko ñu dem far yàq ko nañuy waxee ñoo yàq sëy ba am na façon wax yoo xam ne ku ko wax yaa yàq sëy bi waaye ku bëgg a defar dangay wax ne li passé laajuma ci dara nettali xuloo xuloo la damaa bëggoon lu passé woon di lu ñaaw bàyyee ko ci yow jëkkër ji na nga ko gas suul ko tey moo xam lu ñaaw lu bàyyee ko ci soxna sii na ngeen ko gas suul ko tay li passé daal nañ ko def muy paas boo xam ne las nañ ko passé na dëpp nañ ko ba pare ay waxam waxatuñ ko waxi démb waxuma ca wax waxi bërki démb waxuma ca waxi daaw jéeg waxuma ca waaye damaa bëgg ñu wax waxi tey waxi tey ji mooy ne na ngeen àndoo yéen ñaar ngeen defaroo yow soxna si ñëwal nga tuub tuubal sa borom kër donte moo la doon yow jëkkër ji yow tamit nangul ak tuub ci sa borom kër donte tooñut la woon nga yëkkati boo xamee ñaari junne mbaa ñeenti junne jox ko ko ne ko jox ko sa borom kër gi am na ki ñoo xam ne seen mer ma ñàkk xaalis rek la yow waat naa ko ci yàlla mën naa xam fere yaa métti rek waaye tay boo yëkkatoon som bu am doole jox ko ko ne ko jox ko jëkkër ji taba tabaarakallaahu boo tuñ ñi defaroo moom tamit buñ ko ko joxee rek moom nekk nit ku yaatu ne ko a soxna si waaye jëlal ñaari junne yi nga dem toggal ma ganaar ñeen ñoom ñaar ñi bokk reer ah mën naa am jafe-jafe yooyu yëpp dana mujj maanaam saafarafu waaye defar kat dafa am waaye dafa bëri ñoo xam ne yàq kat lañ soo leen yóbboo ci sëy bu sëy ba yàqoo ñoo ko yàq ndax la ñuy wax lañ koy yàqee am na ci wax yoo xam ne kenn du ko wax waaye waxi daaw jéeg ak waxi daawaati jéeg yëpp nga bëgg ko faa kii taxaw wax ne nijaay ba nga ma defee nii yaa ma defoon nangam maa defoon nangam yaa defoon nangam dara du fa defaroo lépp yàq lay jur waaye ku bëgg a defar daal li xasoon paase yëpp bu ca laajati dara suulal lépp bu ko defee ngeen ne ko tey waxi tayam a tax a jóg waaye waxi démb moom euh, taxul ma fee ñëw. su ko defee nag soo taxawee foofa rek insha allahu lañ nga bëggoon yàlla mën na koo def moo tax Omar ibnu Xataab bi ñu tànnee ñaari délégation yi ñu dem yàlla dogal dëppoowuñu ñu ñu yoonal ak fase ci seen diggante ba ñëwee naa Omar dafa leen a caw ne yéen ñi yéen a yàq sëy bi kon nag sëya ngóog ngir xir gi yàlla xir ngir bëgg sëy des fi sëya ngóog ngir yàlla gis ne bu ma kóllëre gi ñu leen xeewee bëggul lu ko yàq wax naa la ko bu yàqoo hee tabaarakallaahu te lay yàq sëy waxoon naa la ko mën naa bàyyee ci jëkkër waxoon naa la ko mën naa bàyyeekoo ci jabar waxoon naa la ko mën naa bàyyee ca goro ya waxoon naa la ko mën naa bàyyee ko ca mbokk ya waxoon naa la ko mën naa bàyyee ko ci jàmbur boo xam ne du ca dara day taxaw ne bu doon mënta du doon moom mukk ba jaaree fa yàqu kenn ku ci nekk na ko yonent bi tegee ca àndam ak ak yàlla ci alquran wax naa la ko waxon na la bu jafé jafé amé ñi càmbar ko mu bayé ko ci jëkër ja nañ ko tek ci andam bu fekkee ci jabar jala nañ ko tek ci andam su fekké ñom ñaar ñepp la nañ leen boole tek leen ci seen andam ñu leen war défaro defaroo lépp wax na la ko sa dara taxut lulul yalla bëgg sey def ci rek buum ak kóllëre ga ak bu ma yaakar ga ak bu ma ciofel ga leen ko ta bëggu dara lu ko dag kon nak xamna bo boo ma toppee suba rek ci waxtu wi ci kartanal yalla ma dugg ak yow nag ci yedda yi ndax moom ci aaya yi ci la bokkoon gannaaw fase amna na ba pare nag ma wax la yedda yaag wuuteeg am na koo xam ne ci jigéen ñi wala ñoo xam ne dañuy yeddawu ci direct am ñu yeddawu ci weer am ñu yeddawu tabaarakallaahu ci sippi li nga xam ne moom lañu ëmb yooyu yëpp boo ma ci toppee suba ma wax la ñaari façon yedda yi yedda yi ñu tuddee ji sa jëkkër a dee ak yedd gi nga xam ne dañ laa faxe benn bu ci nekk ba nga mën koo dégg comme parce que xam na te ci aaya ji ci loolu la doon wax kon nag suba ci waxtu wi la doon insha allahu wa aqiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu